asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la de conscience euh, jamono ñuy wax ak yéen ñoo ngi New York fii aux États-Unis yàlla dogal euh, information yi dañuy yomb trop li xew dañuy yomb ci àdduna bi ndax réew mi ñu naan États-Unis daanaka bu ñuy wax moo boot àdduna bi ci lépp nag xam-xam bi fi nekk wér na constitution bi fi nekk ban ko liggéeyee ba nëgë ni ne ñaari yoon la ci loxo ma sa dem boobu ba nëgë ni loxo laalu ko ngir lépp tegu ci yoon réew mi ñu wax yàlla dogal seen lépp lépp ci xam-xam lañ ko teg ak liggéey akuk jub muy réew moo xam ne américain lañ koo aar aarin woo xam ne ah, du bu la neexee dam damme bant fu la neex waaye lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf ah, jël responsabilité yi te sàmm yoon wi nga xam ne bu la tegee loxo da nga leer bam leer nàññ réew mi gouvernement bi moomu ko réew mi nit ñee ko moom te képp koo xam ne dangaa jóg ci empoisonné nit ñi état bi dana jóg ci yow jógin woo xam ne ak foo mën a nekk ci àddu des la fa fekk euh, narcotrafic dafa bari state narcotrafiquiens yi dañoo bari le Sénégal est devenu une plaque tournante de drogue lii ba ma leen ko dalee wax ak léegi mat na fukki at wala fukki at ak nangam mun fàttali ko jamono Ablaye Wade organiser benn manifestation devant l'ambassade du Sénégal di naqarlu di naqarlu drogue boobu nga xam ne day aw Sénégal di dugg ci réew yi ak di dugg Sénégal di tas ci réew ma drogue bi nga xam ne muy dugg Sénégal bu dee cent kilo quatre-vingt-dix-neuf virgule cinquante yi day génn réew mi maanaam maanaam bu dee fukk bu dee fukk mu def ci seeni bopp juróom-ñeent ya ak genn wàll day génn réew mi la ca des mooy li trafiquants yi sàcc ci biir trafiquants yi tasaare ko ci réew mi pour for ca dara walla xotti poudre yi tuuru ci bato bi ñu bale ko dajale ko ay yenn trafiquants sàcc ko fexe ko dugal ci réew mi Sénégal ba mu nekkee state boo xam ne trafiqué trafiquant drogue yi bëgg nañ ko yàgg na euh, dama leen xamal leen pour ngeen xam réew moo xam ne sa xaalis moomoo ko da nga bari ay phobie da nga dugg ci trafic de drogue ak trafic d'organe dama ne réew moo xam ne contrôlé woo sa banque centrale ay phobie da nga ci dugg danga dugg ci drogue da nga dugg ci trafic d'organe ñaare bateau yi nga xam ne ñooy liggéey lii ëpp ci drogue bi mooy bateau de pêche yi yaay jën ndax jën dafa xeeñ euh, mën naa nëbb lu ne beneen ba ca des ñi nga xam ne en général trafiquant de drogue ci la ñu nekk moo ñi nga xam ne les déchets toxiques ci lañuy ñu liggéey maanaam mbalit moom nga xam ne kenn du ko laal mbalit mu bon moo xam ne dañu wut fu ko sànni gouvernement yi nga xam ne narcotrafiquant lañ ñëw jox lissance bato yooyu ñu tuur mbalit yi rax ca dolli di yab drogue wala ñuy indi drog ci réew mi da ngeen gis it bato yoo xam ne dañuy largué seen lànk encre maanaam dañuy gaare dañuy gaare waaye bato boobu kenn du ko laal bato boobu day mel ne daa paan paanut dafa indi drogue ba si ci dëkk bi taxaw beneen bato war a jóge feneen roñ drog ba yóbbu te loolu état bi da koy xam en général bateau yooyu ay général ay généraux ñoo leen di contrôler kenn du ko jege kenn du ko laal fekkal na ci biir kenn xamul lu mu doon suñ réew mi yàqu na réew mi yàqu na fii nu nekk nag aux États-Unis ñun en tant que des sénégalais niñ bëggee Sénégal niñ bëggee Sénégal noonu lañ bëggee Amérique gii Amérique noonu lañ ko bëggee mu ne ci suñ xol ñu di ci liggéey teraanga ñun am mu jox ñu ko kon képp koo xam ne dangaa nekk ci biir Sénégal ak fu mu mën a doon doon un Sénégalais américain soo gisee intérêt Amérique nañ ca taxaw l' intérêt des Américains et notre intérêt et notre propre intérêt américain tey bu ñu jógee ba taxaw Sénégal di aar drogue bi du du ñoom doo nga tax suñ doom ci yàqu bari na euh, te bu ngeen xoolee drogue bi fi aux États-Unis ña na koy utiliser mooy suñ mbokki noir yi lu bon li lañuy jël waaye lu baax li yi nga xam ne ñoom lay ñoom du mën a gaañ lu bari tubaab yi koy jël def ci seeni business ak ci seeni laboratoire kon drogue képp ku ci taxaw ku ci taxaw rek taxaw nga ci liggéeyal yàlla drogue képp ku ci taxaw taxaw dama ne taxaw nga ci pour sauver l'humanité kon américains yi ñu ngi leen gàcce ngaawalaam di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne Sénégal police bi gouvernement bi gendarmerie ba ci armee bi même armée française bi nekk Sénégal bi nekk Sénégal nan ko xool parce que mën nañu jëlee drogue Sénégal transporté ko mu dem France lépp mafia internationale bi moo koy def may dellu soñu américains yi ni leen buñ bàyyi genn gaal buñ bàyyi genn gaal buñ bàyyi kenn képp kun ko déggee nga di ko jëf ay élection doo ci bokk te des na la jàpp waaw jàppale léegi bala ngaa doon élect candidat defe naa ne moo gën moo gën nga bañ a bokk képp koo xam ne teg nañ la loxo ah nga def sénégalais wala ñun sénégalais ñu yëg ne yaa ngi ci plaque tournante drogue bi ba ñu ni ci dara dañu la signalé ak FBI daañu signalé ak police teg fii Amérique Amérique Amérique tout le monde est policier tout le monde est un de droit tout le monde est un tout le monde est civilisé par le système dama ne yii bàyyi leen ko waaw te du ngeen ko baax ndax tàmm ngeen ko la douane sénégalaise li ñuy jàpp ci douane li ñuy jàpp ci drogue kenn xamul lu mu toll at mu ne at mu ne waa poor bu séddoo bu ñu séddoo seen i recette douanier bu nekk bu ne da nga ëpp lu ëpp cinquante million wala cent million loolu américains xam nañ ko drogue bii drogue bi Sénégal amuñu njëgam duñ ko tox waaw le premier ministre bii nga xam ne moo nekk les îles vierge anglais ah, yu anglais yi jàpp nañ ko mi ci kaso bii kaso bii la nekk te man ko jàppee léegi yàgg na te ci biir enquête bi amaa ñu koy teg loxo Sénégal aw turam feeñ na ca ak Guinée Bissau kan la woon ci Sénégal man moom moo ma wóorul woon moo tax mosuma koo bëgg a wax waaye yëgoon naa ne kii nu jàpp kii nu jàpp tey dana tudd ab sénégalais te sénégalais bi tudd kilifa la. yaayee bañ a bokk ci élection yi parce que loolu moo la arrangé loolu moo arrangé waa Sénégal néeg ba nekk président de la république en pleine campagne ñu fekk la fa di la takk gàcce mënut a passé loolu moo tax la FBI liggéey bu sell la ñuy def liggéey bu rafet la ñuy def FBI ku fëgg sa bunt rek xam ne am na preuve yëpp gendarmerie national du Sénégal bu njëkk noonu la meloon genre bu ñu jógee rek dëgg leen yëkkati. waaye Moussa Fall yàq na lépp Abdoulaye Wade yàq na lépp gendarme yi ci digg drogue deal bi ñi ci digg bi amul dama ne amul lenn luy génn port autonome te gendarme yi gisuñu ko wala alkaati gisuñu walla douane yi gisuñu ko dama ne xoola douane bi day sédd gendarme yi douane bi day sédd alkaati yi dañuy séddoo te dañuy lépp a ngi ngir yàlla dama ne yéene fi wax ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans ngeen te drogue fun la ci jàppe fun la ci jàppe bu demee ci charia dañ la war a deqal rendi deqal rendi lañ la war a def kon am naa yaakaar ne yéen yéen di tax ngeen ragal charia loolu képp a tax waaw am na ci suñ premier ministre bi am na kilifa diine goo seeti woon mu di ko raamale ko nuyoo waaye jamono yooyu man la ma yëg ak yéen li ngeen yëg bokkul moo tax musuma ko apprécier musuma ko apprécier dama ne am na kilifa diine goo xam ne suñ politicien bii bu daanoo ak fum mu mën a nekk américain daañu ko jëli dama ne am na kilifa diine goo xam ne ponkal mi ñu wax senegal bu daanoo dana ko yóbbaale Amérique nag sëriñ citoyen la comme ñëpp policier bi citoyen la comme ñëpp ñun ñëpp bon citoyen lañ americain xàmmewul espagnol wala black wala kenn boo ñëwee ci code bi tribunal bi la fay nekk lañ lay atte jombul nag ay ñuy bàjjante ci seen biir kooku seen affaire mais je parle de la constitution americain nga xam ne mooy bi gën ci àdduna ndax man ko defee ba nëgën loxo laalu ko daanaka bokkul bu Sénégal bi fukki fan yi ne ñu woote xoos ca dara événement bi bëgg a dikk politique wala lu mën a doon président bi lay woote pour ñu changer loo xam ne dana ko arranger ci constitution bi loolu kenn waru koo def waaye ñun amuñu constitution je me rappelle je me rappelle en 1963 Dogo euh, euh, le le président Senghor dem na France bi mu ñibbisee ñu interview ko lu mu wax je reviens de la France avec ma constitution. je viens de la France avec ma constitution ma constitution ana ku koy wax loolu fi Senghor wax te boobu ba ndëgg ni ma constitution moo fi am ku falu jël constitution bi mais la ko yor cahier de brouillon waa di wootee référendum di yàq rek di yàq rek waaye comme americain yi dugg nañ ci mbir mi kat ne alhamdulillahi rabbil alamin la FBI dafa bokkut sax Interpol doole bokkul xam-xam bokkul matériel yi bokkul dama ne xale yii dee ci géej yii dee ci géej gi yii dee ci géej gi ñu naan dañoo labak labu ñoog ay manifestants yu loon lépp lépp billaahi américains yi mën na laa woon vidéo yëpp ndax côte atlantique bi côte atlantique bi amul benn bato bu fiy gaare te américains yi duñ ko gis dañ ko sécuriser kaabal kaabal yi nga xam ne rek ñoo ci géej gi ñoo ci géej gi dafa laaj sàmm ak aar ndax ci la communication bi jaar buxuma la ak bateau yi nga xam ne dañuy dikk pour émergence kon américain yi seen bët dañ ko teg ci côte atlantique bi képp koo xam ne yaa ngi dafay jaloore wala ngay sàcc wala ngay rawale wala ngay dugg ci bon billaahi wallaahi doo rëcc doo rëcc li leen Ousmane Sonko wax lépp dëgg la kaay la ñu am suñ freedom kaay leen nu am suñ banque centrale kaay leen nu am suñ monnaie kaay leen nu am ay banque forte yoo xam ne ñooy anime ñoo animé les banques locales kaay leen nu am ay ay microfinance yoo xam ne ñooy nekk ci biir neighborhood yi ñooy nekk ci biir marché bi ñooy nekk ci biir communauté bi ñooy nekk un peu partout di supporter business yu ndaw yi leen Ousmane koo wax nanguwu leen koo dégg njaayam drogue moo ni seen i bopp te maa ngi conseil FBI les entrepôts qui sont au Sénégal entrepôts yi nañ leen xool entrepôts yi nañ leen xool maanaam warehouse yi nekk Sénégal ñàkku ñu fay dénkaane drogue boo xam ne pour transit la transit la kii mooy premier ministre bi nga xam ne moo taqal sénégalais bi kii mi ci kaso bi États-Unis mooy le premier ministre des îles Vierges de l'Angleterre moom la les îles Vierges de l'Angleterre kii la mooy seen premier ministre mi ci kaso bi fii waaw bi yer yi méttee enquête bi saf-sap ab sénégalais la tudd waaw te sénégalais bi kilifa ci réew mi la waaw pëndëx baa ngi nii waaw cocaïne képp képp képp la am am xoola marché xoola trafiquant international marché bi dëgg dëgg dëgg Sénégal ci la bokk yéen i fàttali commandant Keita commandant commissaire Keita commissaire xam na li xew heure malheureusement ñu ko jàpp ci drogue ñi yàmbaa ñu ñàkk fay di leen ko jàppee mais tout cocaïne bi muy xam na ko xam nañ ko xam nañ ko Macky Sall ma safee nommé jenn waay mais waa jooju moo daan défendre John euh, John John Yuba benn benn Nigérien Nigérien drogue trafiquant drogue waaw kooku il est recherché partout John Yuba partout partout dans le monde mu daw làqu Sénégal kana ko Sénégal ak bi ñu ko jàppee def ci kaso bi bi Ablaye Wade waatee ah am na kon nommé Macky Sall nommé kooku ci avocat yi ko doon défendre la ah ba heure bi mënuñu le fii la waa ji jaar te il est recherché partout dans le monde drogue bii dugg Sénégal dama ne jóg ci te kilifa yi diine yi tax nañ ci ah kilifa yi diine yi taq nañ ci. Ah, te lii ma leen di wax lii ma leen bu fi FBI jógee FBI jógee nar a def liggéeyam ay bomb dana tàkk ci kër googu foogewul bu FBI jógee ndegam les plus grands trafiquants du monde Mexique Colombie américains yi dañuy dugg ba dugg ci àll bi guérilla bi ñuy xeex ak ñoom américains ay milliards leen dépensé pour xeex drogue bii américains yi du nangu mukk mukk mukk Sénégal du réew su ndaw amulul leen njariñ ba pare bëgg a empoisonné américains yi duñ ko nangu te man mii de du ma ko nangu du ma ko nangu xalaatuma ko nangu te drogue bii bu ci benn paquet rëccee dugg Sénégal dana yàq loo xam ne ci ay doomu aadama nit mënu koo defar bato yaa ngi nii livraison à Dakar outillé ah maa ngi les îles les îles Vierges anglaises ñëwal jël si ñëw la bato bi ñëw bato bi di kee gaare Dakar un général superviser bato bi ñu tool ni lépp daf ci benn bato mu demati ah Sénégal dafa mel ne ah state state bu transit la transit genre yi ci guddi ba teg suba ngoon ñi ngi gis bi mais ca kaw lay jóge duñ mën a wax duñ mën a wax duñ mën a wax am na benn benn benn ministre xaw ma député du am na colis doon jëli ñu bind ko ay portable ay portable lay jël lay génne ba mu demee douane bu téyewul tepp paquet muy muy cocaïne daa daw jëlu ko te fa mbir ma yem te kilifa la ci réew mi ah dama ne yi aussi libaane yi libaane yi centre de trafic international ay faux billets ah lépp loo xalaat rek i libaan dañ koy def dëpp ñu njëndum gerte mi njëndum gerte mi libaan yi fi nekkoon dañ daan defar ay faux billets dikk di ko jëndee gerte ci suñu baykat yi te duñ ko xam duñ ko xam ndox ko ban FBI jógee nag jóg à au niveau international non seulement sauver son peuple mais sauver le monde entier kii mooy le premier ministre américain arrêté nañ ko te mu tudd ab sénégalais le premier ministre bu les îles anglaise mi ngi ñu ci kasu bii mi ngi nii tëdd waaw kii tey bu dee ba tudd un homologue xam ne Sénégal lu war a jóg la lu Sénégal lu war a jóg te FBI laa lay xamal FBI dana teg fe benn kees nga ne fàtte na ko de bëtam a nga ca da koy yaatal ak kees kees mooy bu teg benn kees di ci sànni ay dossier di ci sànni ba dossier mag dikk nga xëpp kees gi ci suuf moo tax Sénégal tuur ay dossier jot na lépp ñu gi ci lépp loo xalaat ñi ngi ci waaw am na arme yoo xam ne Boko Haram lañ ko jàppe woon ca Cameroun am na ji yoo xam ne Boko Haram lañ ko jàppe au Nigéria arme yi Dakar lañ def transit Dakar lañ def transit loolu lépp ñi ngi xam nañ ko utilisation boobu nag ñu utiliser réew mi muy réewum bandi état de trafiquant mu nekk état boo xam ne narcotrafic ci leen leen xam nga xam ne ministre yeeg député yeeg ñëpp xam nañ di xew ñu ci faux bii ñu ngi ci trafic d'organe bi ñu ngi ci lépp loo xam ne xalaat nga ko au niveau international aaye ko dama ne suñu réew mi ca la ñu ne ca la ñu nekk waaw te lii ma leen di wax lii ma leen di wax FBI jóg na FBI jóg na de jóg na te dana leer lu baree baree bari te dama ne ay ay généraux wala ay capitaine yoo xam ne xam nañ ci dara daa jóg testify pour américain yi daani jóg wax dëgg américain yi te bu ñu waxee dëgg américain yi gémmiñ dina dal foo ko foogewul waaw yàq ngeen su réew mi waaw koo ci rek mu koy doon milliardaire waaw koo ci rek lim am ci wërsëg doyu ko yow ñu nommé la lu ne ah ngay ministre uuf ab xaalis ah lu la neex jël loolu doyut loolu doyul nga naan damay dugg ci ay bateau drogue damay dugg ci trafic d'organe damay dugg ci ay faux ak ñàkk gëm yàlla dama ne kuy def loolu bu la jàppee yoon da war a àtte ñu suul la te doo dee ñu suul la ngay noyyi loolu la yoon waroon a àtte waaw kon dama ne jóg jot nañ bokk jóg buñ bokk jóg des na ko réccu fii senegal jëm du foofu de te lii yàgg na de trafic bii yàgg na ci réew mi ñépp ko xam la senegal ak gine Bissau dama ne mosuñoo réeroo de Brésil ak senegal Argentine mu suñoo réeroo de la Colombie ak Sénégal ak yeneen trafiquants mu suñoo réeroo le Sénégal est naturellement centre de trafiquants boo xam ne wér na ah manifester naa ko Washington manifester naa ko département d'État manifester naa ko devant l'ambassade du Sénégal manifester naa ko au Nations Unies pour ñu xam ne Sénégal mii mi ngi ci digg drogue bi waaw jaaykatu bateau jën yi ne leen di xool wax naa leen ko ñi nga xam ne ñooy tur mbalit yu bon yi les déchets toxiques nga xam ne kenn soxloo ko dañ ko indi ci réew yi di ko fi tuur ak di ko tëmbal ci géej yi ana lu leen ko may ministre yi ñoo leen jox ordre ñu di ko def ngir lan ay koppar te luñ liggéey sàcc ko xoolal maral yu nekk Touba rek astawar la xoolal géej géej gi nekk Touba ah te ñun xalaatuñu dara ah xalaatuñu dara lu dul léegi am biddaa xalaatuñ dara dara dara du dul wax loo xam ne lu suñu nekkul la xalaatuñ dara dara du dul jël nit jëmm doomi aadama ne ko yaay yàlla ah tikka koy bii gis ngeen ko ah escale dakaar war a dem feneen ah addu adduna ñun ñun ñun maanaam maanaam dañoo dañoo dañoo ci digg bi ñu duñ jéggi ñuy jàlle ñu duñ jé jox ñuy jàlle loolu mooy transit dañ nuy jox nuy jàlle te li ñuy jàlle kat duñ ci am dara juróomi nit ñetti ñoo koy seddoo waaw lii moom war nañ cee jóg war nañ ceeb bi dugg Sénégal ceeb bi man ngaa commandé ba ceeb ceeb bi ñëw génn wàll gépp moom lay doon te bu ñu génnee ceeb bi bàyyi foo loolu am na beneen bati bu ñëw jël ko yóbbu loolu lépp americain yi xam nañ ko waaw ceeb bi ñu indi ko dugal ko génne ah ak blé bi blé bii ñëw ko dugg ci réew mi ah loolu lépp dañ ko war a seet ba xam day indi wala day yóbbaale ndax drogue bi fu ne lañ koy def te drogue dafa lalu ci ay fen dafa lalu ci xam-xam boo xam ne da ngay xalaati xalaati iblis xalaat xalaat de xalaat satanique moom la xalaat yu bono bon la waaw am réew na bu dee ba doon narco state narco state réew moo dañ ko war a tëj tëj wala ñu envahir ko envahir ko kon la CEDEAO def nañ seen xel ne drogue bii jaar Sénégal xam ngeen ko lu leen ci ump newu ci yéen waa CEDEAO dama ne drogue bii dugg Sénégal ak dugg ci biir CEDEAO xam ngeen ko dina leen wóor ne Amérique mi ngi seen i tànk waaw la FBI mi ngi seen i tànk daañu leen jàpp yéen ñëpp képp ku nekk Afrique ah di dugg ci trafic drogue bii ak ngay walli wala nga dib sëriñ ngay ministre wala député ak loo mën a doon lu ne dees def comme ni def kii premier ministre bi ni ñu koy mi ci kaso bi tëddee aux États-Unis te am na ku mu tudd ci Sénégal am na ñu mu tudd sax laa ci Sénégal ñooñu ne buñ ci àggee de sox seen i tur ndax américain yi dañ bàyyi dara de. américains yi fu mu dóor mu métti ab yar dana fa waaw américains yi ñoo lànk wax nañ dëgg duñ bàyyi kenn kenn di jël drogue ah di ko awale ci réew mi Sénégal ba pare waññu ko war koo jël di ko dugal Amérique di empoisonné américains yi dañuy lànk wax nañ dëgg. dañuy lànk wax nañ dëgg waaw am dama ne kilifa gu ci duggoon muy diine ak gu mën a doon gone na la wóor da nga yuuxu ci sa kanam yi dongo bu la américain yi jëlee dañu la takk te daañu la déporté indi la fii di la duma suba guddi ngoon tëj la loo xam ne doo génnati ci àdduna seen drogue bi ak yi ngeen di def dama ne ku ci duggoon ku ne ku ci duggoon ku ne boo ci génnee sax boo ca génnee boo ca génnee sawtura nga américain yi jël lamb jigéen ni mbubboo ah, def ko loon morning yii yëpp xam nañ ko waaw promoteurs yi ne ci drogue bi ah xam nañ leen waaw mafia bi nekk mbuur wumpul américain yi kéebaane yi seen groupe bi wumpu leen ministre yi nga xam ñoo ne ci kaw di loxo ak loxo jaale xam nañ leen ku ci masalaal ku dama ne Amadou Ba ku masalaal ku ne ci drogue bii américain xam nañ la waaw waa jii moom xam na ne teg nañ ko loxo te du moom dong de du moom dong kon Ah, may jéggalu bu baax te ñaan jàmm li lépp bëgg suñu réew moo nu ko yóbbee bëgg suñu réew moo nu ko yóbbee bëgg nag bëgg bëgg ba li ca gaañu kooku dafa naa ne jaaduwul te réew bu ngeen toogee seetaan ko daana bokk torox waaw torox nañ sax ba pare torox nañ ba pare ndax bu ne ma ay kilifa yoo xam ne ñoo war a jubbanti kilifa yoo xam ñoo war a doxal réew mi kilifa yoo xam ne kilifa yi diine lañ war a doxal lislaam ji dugg ci drogue narco state bi di trafiquer drogue ah dama ne réew mooma fu mu jëm kenn xamu ko kenn xamu ko dañuy nax nag seet borom quatre-vingt-dix-neuf ans quatre-vingt-dix ans borom cent ans ñu ne ko yow la ñuy déglu sa ndigal loolu lépp ay ndax la xam na ne kee mag la la muy xamu co dara moo tax ñuy jël ay mag ak i màggat teg leen ci boppu réew mi lànk leen assemblée nationale bii dikk dama ne quatre soixante quinze pour cent yi nan doon ay moins de quarante ans dama ne soixante quinze pour cent mooy de quarante ans réew mi yéen ko moom jóg leen ngeen defar ko waaw jóg ngeen defar ko waaye trafiquant drogue yi ngeen di nommer sàcc yi ngeen di nommer jaaykat yi phobie yi ngeen di nommer ñi nga xam ne trafic d'organe lañ dëkkee ah ceeb bi ñëw ceeb bi dugg Sénégal bato ceeb yi maa ngi informé FBI bato ceeb yi di nañ ko yebbi lépp ngeen xoolaat ko bato yi napp si jën Sénégal ak di transit Sénégal ne ay jën lañuy jël si waxuñu dëgg waxuñu dëgg pëndëx lañu fi jële si waaw nañ xool gaal yi xool lépp waaw Guinée Bissau moom ñëpp xam ne leen ci drogue waaw ci jàpp leen leen dëkk parce que Portugal a tax ak ak ak ak Brésil ak parce que ay portugais lañ waaw ñoom defe nañ drogue rek moo jàlle lépp Sénégal gii ba muy dugg ci drogue sax Guinée Bissau dugg ci dugg ci waa ndax Sénégal dafa nekk île boo xam ne correspondance boo xam ne loo teg Sénégal am bato bu ko jël si Sénégal point géographique bi mu yor la bu mbuus moo fi teg am na lu ko jël si te kat am na drogue boo xam ne day wàcc dakaar jël jël yoonu suuf yi am bato euh, drogue boo xam ne day wàcc ci avion bi lay jël am yoom day wàcc ay soldat koy jël si am yoo xam ne day wàcc aw aw ay ay mbaam ak saret lañ koy teg ba mu àgg fa mu jëm te li ci ëpp na li ci ëpp day génn réew mi kon maa ngi jégul te ñaan jàmm man la waaw nu ànd di ñaan jàmm rek jàmm rek a dagan di ñaan jàmm képp moom dong lañ bëgg man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience peace and love